leen gërëm bu baax di jégalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di sant yàlla bu baax teewaat euh, ci émission 30 minutes chrono ci solution info TV di nuyu bu baax waa régie El Hadji Modou Diouf Abdou ak Abdoulaye Diallo ñu fa yéene ànd ak yéen ci diiru ko fanweeri minute waxtaanee actualité bi ci biir réew mi actualité bi nag doon benn jukki rek jukki bi mooy li jëm ci reportu élection présidentielle yi ba ko Macky waxee ak tey ji yu bari xew na ci diggante bi gis nañ fi àjjuma ji ñu weesu réew mi yëpp génn ci lu kenn waajul mu mel ne peuple bi moo jël mbir mi defal ko yëfu boppam dinaa ci dikk incha allah ci kanam ak li jëm ci médiation bi ñuy wax te man moo jàpp ni médiation dialogue wala lu jëm ci waxtaan wi ñu naan dañ koy waxtaan ak Ousmane ko pour mu génn ba ci amnistie yooyu yëpp ñu am ci sunu xalaat wax aussi ci doxalinu président Macky Sall man mi jàpp ni nag wóolu ko moom mooy ñàkk xam li xew man dama ko wóoluwul ci dara ci doxalin. te loolu njëkkewul tey Macky Sall ku ko xam depuis 2012 ak tey jii nga xam ne nguuram li ci ëpp doole mooy li jëm ci wàllu mënaas waaw menacé tëkku walla jëm ci mbiri chantage defal lii ma teg lii walla li jëm ci wàllu ruse ruse mooy mbang lu foog ni yaa gën a muus ñëpp jiital sa bëgg-bëgg ci lépp ñun moo tax ñun duñ ko wóolu wóolu ci dara parce que nit ki bu dee ni suñu borom dafa dogal ni bu xëyee ci boppam lay ne bu ngoonee ci boppam bi fanaan ci boppam maanaam day xëy kàbbar ci boppam bu ngoonee mu sëlmal ci boppam dama gëm ni Macky Sall lu dul boppam ñoru ko looloo tax di séq ak moom yenn yi wala ay digeem wala ay doxalinam lu tax sunu xel di tey ci doxalinu président Macky sàll mooy daf fi yëkkati loo xam ne àdduna kenn àndu ci ak moom bu dul ni dóorkat yi bu dul ni dóorkat yi maanaam mu doon ab journaliste dóorkat wala mu doon ab politicien dóorkat wala mu doon ab tappalekat mais képp ku dëggu rek te xam yoon te bëgg a tegu ci yoon rek ànd ak moom ci rapport élection yi ndax tegu ko fenn bu dee ci wàllu yoon amul lu ko may mu mën a reporter élection yi amul assemblée nationale ba mu doon taafontoo sax commission d'enquête parlementaire ba teg nañ ko fële teg nañ ko fële ne dañuy ibbi ab information judiciaire ci plainte juge Cheikh Ndiaye mooy wane ni moom jamono ju ne rek li dëppoo ak intérêt moom lu dëppoo ak intérêt rek dina fexe ba génn ci bi ko commission d'enquête parlementaire arrangé dafa ne non nan gaawal commission bi commission bi danoo nekk urgence ñu gaawal ko dóor mu daanu mu reporter élection yi ñu pare ci commission bi intéressé tu ko léegi information judiciaire moo arrangé Macky Sall mu dugg ci information judiciaire ginnaaw lu fi xew loolu tax képp ku la gëmal ni Macky Sall pare na pour ay amnistie wala pare na pour libérer les détenus politiques ci sagoom ci bëgg-bëggam ah mun na am de man de yàlla na ma bett mais man gëwuma ko parce que bu leen naroon génnee wala mu am fu mu leen jaar yomb na la procureur moo ko yilif moo yilif le ministre de la justice am nañ fu mu mën a jaar ba libérer les détenus politiques am nañ fu mën a jaar ba libérer Ousmane Sonko libérer Diomaye loolu jarul loi si jarul dara jarul chantage jarul menace jarul dara fa nga jaaroon ba jàpp leen foofu rek ngay jaar ba bàyyi leen mais mag sàll day koo xam ne du def lu mu dul gañe dara maanaam def dara ñu ne yàllaa tax mu def ko yërmande tax mu def ko jàmm réew mi tax mu def ko man gëwuma lool man dama gëm ni lépp lu muy def am na lu mu ci jublu léegi nag damay ñaan yàlla mu bett ma man ba naa Omar lu mu waxoon amul Macky de bett nañu Macky de lii nañ kon na leen bàyyi Macky Sall bi mu jotee nguur gi lu tax ma ni la lépp lu mu dugg intérim la ci set Macky Sall li mu njëkk a sumb ci réew mi mooy CNRI commission nationale de réforme des institutions Amadou Mahtar Mbow jiite woon ko bi yàlla dogalee commission bi def at ñu yëkkati budget bu jege milliard jox leen lu tax ma mën a nettali lii dafa am benn journaliste bi ñuy wax Pape Cheikh boobu maa ngi nekkoon ci benn rajo mu boole woon ma ak benn kilifa bu ñuy wax Moussa mbay nekkoon ENDA musaa mbay dafa bokkoon ci commission boobu yàlla dafa dogal ma toog ak Moussa mbay Moussa mbay dinga nga rapport commission ba ñaar joxoon na ma ci ñaari téere yoo xam ne ba tey jii mën nga sama kër yenn saa yi ma yër ko commission bi pour ñu réformer les institutions pour tegaat réew mi ci yoon pour li ñu dund ci Abdoulaye Wade ñu bañ ko dundaat ji nga bi commission bi dafay liggéeyam at ak Amadou Mahtar Mbow ma mu jege téeméeri at nga loo ko dëkk bi jël ay universitaire jël ay consonant jël ay borom xam-xam jël ay kilifa yi nekk ci wàllu ONG ji nga bin ñëwee rapport bi xam nga lan la avant rapport bi di yegg si ay nit Macky Sall ñoo génn boobu maa ngi ay Cissé ay ñoom Abdou Mbow bare ñu génn ay ñoom Seydou Guèye naan rapport bi génne nañ ko ba pare waaye nag dañuy xool lan moo ci arrangé lu ñu arrangé wu duñ ko ci def ji nga bi rapport bi ñëwee à la présidence de la république xam nga Macky lu mu wax waaye léegi rapport bi pare na waaye kenn du ma imposer dara man li ma arrangé lay def pour wàll leen ne Macky Sall ba faloo matul at sax ci lu maanaam ci ay bëgg-bëggam la nekk. maanaam li Sénégalais yi bëgg ak moom li mu bëgg day wute pour pourtant Abdou Diouf code consensuel 92 bi code bi pare Abdou Diouf dafa ne lépp loo xam ne kilifa yi déggoon na ci di opposition du pouvoir bu ma ñëwee du ma ci dindi dara dara dara dara mais Macky Sall bi rapport bi ñëwee rapport commission bi dafa ne damay tànn li ma neex ak li ma arrangé li ma arrangé wul ma sànni ko fële loolu foofu la mujjee ak liggéey ñoom Amadou Makhtar Mbow ñu dawal tuuti Macky Sall dem référendum 2016 bi mu eggee ci référendum bi cinq ans lañ ko faloon mais sept yi ko arrangé fexe na ba génn ci sept ans yooyu nag moo ko indee tey jafe-jafe bi mu am ci conseil problème conseil constitutionnel parce que ba ñuy réformer constitution bi en 2016 ci leen ci dugal ni kenn mënatula wàññi mandat kenn mënatu la yokk mandat loola tax mandaam bii ma bëgg a yokk mënul yokk di nga ki lijjanti yaa ngay lëjal li saa di wax yenn saa yi mais billaahi dëgg la moom moo doon lijjanti en 2007 ba lëjal boppam tey maanaam fa ñu attee ni loi bi kenn mënatu ko yokk fan mënatu ko wàññi moo taxoon mu jigee cinq ans jëm sept ans foofu la Macky Sall tey ji laxas boppam ba mënatu la yokk benn fan bu nu weesoo le 2 avril le 2 avril ñu dem ba benn jamono mu ñëw dugg ci parenage mu arrangé ko te parenage bi avant ñu koy dugal en 2017 leen dem élection législative moom mii Macky Sall 47 listes am maa ngi fàttaliku sëñ Mbacke Ndiaye ba élection yee jeexee mu ne suñu moo gagné parce que man ci ñu doon jàppale nguur gi la bokk 47 listes yooyu ci lañ jugee créé parenage dem élection présidentielle am 5 parce que jamono boobu parrainage da ko arrangé te bëggul candidat yi bari parce que moom candidat la. pour mu mën a daaneel candidat yu bari Macky day fexe ba parrainage am biñ jógee ci loolu élection locale parrainage arrangé wu ko mu dind ko ñu ñëwaat ci présidentielle bi nan lañuy jógee ci deux mille cinq deux mille dix neuf cinq candidats deux mille vingt quatre ñu mën a am ñaari candidats vingt candidats li déposé woon jëloon fiche ci wàllu parrainage kenn xamul nu mu toll ëpp na ñaar téeméeri dem. te nee na parrainage mooy la woon pour wàññi candidat yi mais ñu def parrainage candidat yi yokk kon moom bi muy dugal parrainage ren bi li mu ci jublu mooy candidat yi yokk pour wàññi la woon waaye yokk bi prétexte la woon pour que ñu mën a reporter les élections kooku mooy Macky Sall ci boppam la ne sénégalais nan bàyyi naan ay noo Macky nii ci boppam la ne li Abdoulaye Cissé bu TFM di wax wax bu am solo mooy Macky Sall dafa jël orgueilam jiital ko ci intérêt sénégalais yi maanaam ay bëgg-bëggam moom ay yëg-yëgam du maanaam moom dafa sut ñun suñuy bëgg-bëgg te pourtant du Macky Sall li mu bëgg ñun ñëpp lañ war a bëgg ñun ñoo ko jiital dafa am benn baat bu tubaab yi di wax mooy quand tu n'as la politique de tes moyens tu fais la les moyens de ta politique waaw maanaam doxalinam moom noonu la maanaam moom noonu lay doxalee bu xamee ni lii mënu ko dina lijjanti ba jot ci moo fi taxaw ne bàyyi naa Ndiou Ndiaye un président de la république jugee en deux mille dix-neuf ci élection na bàyyi naa Ndiou Ndiaye kon yow da ñoo war a gëmal ni sept yi ñu njëkk a jiite da nga doon Ndiou Ndiaye non ñun bi ñuy fal en 2012 président mooy mais ñu am nju njaay kat ñu koo xam ne day falu ñu koo xam ne ay compromis ak compromission ci lay dox ay menaces wala ay chantage non looloo tax bi ne Macky Sall non report élection présidentielle bi nee na nañ léegi reporté nañ ko léegi maa ngi wootee dialogue ma ni ko non fan dialogue dialogue wala diversion diversion maanaam lëndëmal gars yi tuur leen lëndëm parce que yi dafa am benn force ci politique mooy situation bu ne xam na nan lay teg ba dégonfler bal bi maanaam bu bal bi gonflé woon ba nara a toj ci kanam xam na nan lay def ba dégonfler ko loolu moom stratégie la boo xam ne heure bu ko tegee day réussir te loolu nag xamul lu ko indi yenn tappalekat yu nekk ci réew mi. waaw ah, yenn tapalekat te tapalekat yooyu dafa am ñëpp dafa am ay journaliste am ay chroniqueur am ay politicien am ñëpp maanaam bànqaas boo laal ci réew mi rek am na ñooñu dafa am sam benn xarit bu nekk pedes bu mu naan li Macky Sall réussir ba tax lu mu jëm ci réew mi mu jàll mu ne dafa fexe ba ci domaine bu ne ci réew mi mu créé fa ay nitam yoo xam ne dañ ko fa nekkal ay bukki sàngoo deru béy boo demee ci opposition bi bari na ñi bow di wax Macky Sall la liggéeyal nga ñëw ci presse bi bari na ñuy wax moom lañuy liggéeyal ba ci rapport bi bari na ci daam yoo xam ne kenn mënu ko wax ay mercenaires yoo xam ne dal leen a jàppale pour ñoom ñu doon def communication pour rapport bi tey jii ñooy génn naan rapport bi nii rapport bi nii ay naafeq lan parce qu'il faut être sincère adduna maanaam da ngay gëm lii wala nga gëm lee kenn waxul nii ñi gëm lii ñoo nekk ci dëgg ñee ñoo nekkul ci dëgg non mais il faut être honnête mais mënoo di cunguñ càngañ cunguñ càngañ nga ñëw ci kër sëriñ si mu am fa ay nitam yoo xam ne lu mu bëgg ñu yombalal ko ko nga ñëw ci politiciens yi ñëw ci société civile bi ñëw ci lépp même bu Macky Sall jëlee décision boo xam ne dafa impopulaire du dëgg ñoom dinañ fexe ba décision boobu ñu toog devant les médias di wax ak opinion bi pour imposer leen ko en mars deux mille vingt et un mbiri Adji Sarr biñ ci jógee ñu jàpp Ousmane Sonko ñu dem ba nguru Macky sàll gi nekk ci ginnaaw sànk saaku yi maanaam jekku Macky Sall dëgg-dëgg ba àdduna yëpp yëg ni dañ kaa jekku ñu gis ay cadre unitaire de l'islam au Sénégal ay sëriñ wala boog ay ñoo xam nee nañ ay sëriñ lan def nañ de telle sorte mag Macky génn ci coow lu ñu génnee Sonko ñu Sonko jël ay ngànnaayam teg woo booy bi nga bis boobu am na ay booy yu taxawoon na ko Sonko pale pale pale maa ngi fàttali nga ngoon gi mu woote wootee place de l'Obélisque mujj bi Sonko dem ci permanence am fii Macky Sall fexe ba négocier ñëw taxaw ak sénégalais yi na nii waaw je vous compris xam naa ni réew mi nii xam naa ni léegi dinaa fexe xëyu ndaw ñi li mbir mi sax xam naa ni Covid 19 bi xale yi maanaam seddu guy te wolof dañ ne cellu mag du noppeem jasit gëmm na waaye xel maa ngi gis man ma bokkoon ci ñi doon am dut ci moom. ma xam ne dafa nekk ci posture bu difficile jekkul waaye day defaru ñëwaat loolu laa gëmoon te temps bi jox na ma raison ñu daw quelque temps ay militant am taxaw président Macky Sall ñëw lu amoon du amati de boobu fekk na jënd nañu ay ngànnaay renforcer les FDS recrutement ci police bi lii Guy Marius doon wax dem naan ay nervi la recruter yooyu mais daal recrutement yi takar ngannaay na jàll ci réew mi mu song Sonko lu Sonko dajul ci àddina toj otoom jaget jagetee ko nemmeeku tuur tas Pastef parti ba kenn desatul junni ndaw nekk ci kaso bi lu ne ñu jëñ leen ko ibbil leen ay information judiciaire procédure yoo xam ne kenn xamul kan la jëm loo xam ne tey jii bu dee ni dëgg la ñoom ñu ngi ko yan bis bu leen attee ci réew mi gëm naa ni perpète la ñuy tëdd fépp fu mu dem ci àddina di leen tëkku ànd ci ak une certaine presse la presse nationale et internationale ñu dem ba jàppee Pastef ab entreprise terroriste tas partie bi Jeune Afrique Le Monde France 24 télévision française yi nga gis ku ne di lii nga gis ñoo xam ne daaw ñëw Sénégal mais ubbi leen tribune comme directeur bu Jeune Afrique Ahmed benn Yahmed ñëw sarge Sonko benn Robert Bourgi jóge fee ñëw maanaam mu doon tir groupe et contre Sonko loolu bi mu amee dégg ña ñaanoon Sonko en mars deux mille vingt et ñaan ko ne ko bàyyil bi ñuy fitnaal Sonko kenn déggul leen pourtant loolu tax affaire médiation yi il faut ñu tey ci heure bu ñu jekkoo Macky Sall ak nguuram ñu ñëw di médiation bu ñu jekkoo Sonko ñëpp di seetaan loolu mënul dëgg loolu di dem di dem ba Sonko dugg ci kaso bi lépp am gisuñu ku ci jug wax ci ñun duñ wax ni Sonko moo am dëgg à cent pour cent de man du mu ko wax mais li ñuy war a wax mooy. li liñ doon teg Sonko ak njabootam ëpp na te tey ji ñi jug di wax yépp ci jamono boobu waroon nañ mën a jug yëkkati seen kàddu mi kilifa diine di kilifa aada di société civile di kum mën ci doon dem ba ci sax la médiation international tey ji ñoom ñëpp jug nañ te loolu lépp li ko indi man dama jàpp ni loolu jekku Macky Sall moo tax heure bu ñu jekkoo Macky Sall dina lewatal ay bët lewatal ay bët lewatal ay bët ba ñépp yëram ko bu jekkuwaatee nekkaat ci la mu nekkoon tey jii la sël moo d'ordre bi ñu war a teg ci réew mi mooy lan mooy Macky Sall sa jeex na organiser élection yi balaa le 2 avril nga dem ci jàmm maanaam loolu mooy yoon maanaam tey jii lépp lu ñuy wax ci réew mi naan ay médiation wak ay dialogue ak ay amnistie yooyu yëpp baax na parce que nag jàmm kenn du ko dox ñuy téye loxo naan non bu kenn dox parce que man mi tey li ma mën mooy toog fii di wax keneen leneen la mën ku ne ak ni doxalee mais il faut ñu tey ci anam yoonoo doxalee ak président Macky Sall xam nit ki ni ba mu falo ba léegi dañuy nax moom nguuram lu ñu dugg mën nañ ci génn bu leen jekkoo ñu lewatal ay bët jamono yi mi syndicat di société civile di euh, tey jii la presse di ñëpp ci réew mi ñoo jug jàkkaarloo moom na ko li nga bëgg mënta nekk dem ba ñi ànd ak moom sax laa ñu toog di ko défendre même moom mënul toog defendre boppam parce que mënoo ni ab commission bi ñu ibbi ca assemblée moo tax ñu reporter élection nga reporter ba pare ñu ne commission ba liggéeyam jeex na nañ ibbi information judiciaire mais tubaab nee na qui peut le plus peut le ku mel noonu war nañ ko wóolu tey jii waa PDS si sax di jàppale Macky Sall war nañ ko wóolu parce que informa tey ji li information judiciaire bii ñu ibbi. mais tey jii néewal liggéey assemblée est-ce que nekkul yi dafa bëggaat leneen assemblée jël lii teg ko ci kanamu PDS parce que PDS ñoo tuumaal juge yi ñoo leen tuumaal léegi bi ñu leen tuumaale ba nopp tuumaal Amadou Ba ñu bi information judiciaire information judiciaire boobu mën na nekk épée de Damoclès ci kanamu PDS mooy PDS yenn a teg tuuma léegi mbir maa nga ci yoon plainte bi kan la visé moo tax waa PDS. makki noot na leen ba noppi parce que bu ko neexee ëllëg mun a information judiciaire bi nañ ko accéléré bi ñu ko accéléré tey jii di wër di wër tuuma yi ba dugg biir PDS loolu da am politique looy def dee ko xam PDS dugg nañ ci lool lu ñu xamul Macky utiliser na leen ba reporter élection yi ñoom gañewuñ ci dara seen candidat ñëwul réew mi jëpp na leen bu doon ni ñett lañ ci réew mi tey jii ñaar yo bàyyi na leen comme loolu nag avec Macky Sall il faut être prudent booy jël risque del xool ban genre risque ngay jël tey ji gis na nañ Abdou Diouf ak Laye di ñëw ci seen communiqué lan la pour may doole Macky Sall nekk na ci posture bu baaxul am na ñu ne sax bind ñu communiqué bi am na ñu ne lii parce que bu doon communiqué bu njëkk bi Abdou Diouf ko bind du génn génnaat di weddi mais Abdou génnaat na ba leeral indi beneen communiqué kon communiqué boobu xel da ciy teey da ciy teey loolu tax tous les moyens sont bons pour que ñu génnee Macky ci li mu ne léegi nag ñu ñëw ci médiation bi médiation ou bavardage noonu laa ko tuddee parce que une médiation doit être souterraine maanaam médiation ci suuf lañ koy def te bu ñuy wax médiation ci réew mais ki gën a jekk ci médiation mooy la médiateur de la république la médiature c'est ça son travail loolu la nga koy fayee mais nan nga mën a créer une médiation boo xam ne ñi koy dox parce que jàmm boo koy dox da nga koy dox ci suuf te yow sax médiation ñi koy def ci àddina bi yëpp pour ñu ci daraja même yi Alioune Tine di Pierre pas ay nit yu ñu respecté te jàpp ni liñ def dañ ko war a def. mais nit ko defee mais mënuñ ko décrier même bu doon ni amnistie dafa war a am dialogue dafa war a am waxtaan dafa war a am parce que man dama gëm ni homme politique warul dem procès war na fexe ba génn ci neneen parce que procès bi boo ko demee tamit say noon ñoo lay àtte nin la àttee ci mbiri Adji Sarr ba dóor la corruption de la jeunesse ci tappale noonu lay lay àttee ci leneen ba teg la leneen kon nun la mën a arranger nga génn nan ko def surtout ko médiation boo xam ne Sonko n'est pas demandeur nee na laaju ko ay nit ñoo dox bëgg a dox tànki jàmm kenn du leen ko tere mais lan lañ koy siwalee ba mi Pierre Atepa di Alioune Tine ku ne di xëccoo ni man maa ko njëkk a wax jàmm kay boo koy dox danga koy dox ba mu sotti bu demee ba mbir sotti ñu ne ah diw de lii am yëpp diw la woon te sax médiation ñi koy def ñëpp ci àddina bëgguñu sax ku tudd seen tur man gis naa ay kilifa yoo xam ne ñi ngi ci réew mi fi bokk ci patronat ak société civile dox nañ fi loo xam ne ci réew mi mais ba tey jii am na ñu ko xamul boo gisul ku leen jege wala nga mës a toog ak ñoom yow xamuñu ku leen jege mais tey jii yow li ngay dox sa teegul Macky Sall ñiy far ak moom bari na ci ñoo xam ne tey jii ñoom bu ñu sañoon Sonko day dee ci kaso bi ak booy yi. mais ñooñu waruñu yëg lu xew maanaam waroon nañ mën di médiation di ci dox di ci wax di ci wax ba mu sotti te El Hadj Diouf du ko yëg xoolal démb ni mu doon ngat ngatee ngat ngat di say sanko du kan di say ba benn aji saar boo xam ne tekkuwul dara ci réew mi ba mën a aji saar sax mën a yëg médiation bay génn naan da ciy opposé wu benn Moustapha Jaxate tamit di say ba naan. waa APR yi daje nañ sax waaye ñoom ànduñu ci mais loolu nekkatul médiation mais bavardage la mais ñun suñu réew ñun ñoo bëgg daraja maanaam man bu ma dee dox dara wala may may nit dara sax damay wane ni man la une médiation ñi ngi koy dox maanaam ñi ngi koy doxal ñoom ñoo war a wax ni diw moo ci dox diw moo ci dox mooy ki ciy dox warul wax ni maa ciy dox parce que bu ñu xamee foo jëm doo egg jàmm ji ci réew mi am na ñu ko bëggul am na ñu mu arrangé wul parce que ñooñu lebal nañu Ousmane sonk loo xam ne gëm na ni bu Ousmane sonk ak ay nitam jëloon réew mi ñoom ci toskare lañ jëm loolu lañ jàpp xoolal audio fute bu Madiambal Diagne audio wu ko tiit la parce que nit bu demee ba ne la Pastef ak képp ku ñu àndal ku ñu xam waxuñ sax ku ci bokk dem ba Moustapha Diakhaté naan ku bokk sax non non Madiambal naan ku bokk sax Yewwi Askan Wi waratoo sax. doon candidat ci réew mi maanaam ñoom dafa am benn haine viscérale boo xam ne da leen a animé te loolu tiitaange moo ko indi parce que depuis que ñi xeex Sonko def nañ ci loo xam ne tey ji ñooñ bu Sonko génnoon duñ xajati ci réew mi bu Sonko nekkoon président duñ xajati ci réew mi yow ngay dox pour Sonko génn mais soxlawoo di wax nit ñi ne maa ngi ciy dox. mais diplomatie ci suuf lañ koy joué même buñ ci doon dox mais yàq nañ ko jarul woon lii mais daraja ut daraja man maa ci dox lii maa tax soxna Sonko génn maa tax lii mais Karim Wade bi ñu xëyee génn génn rek ba tey jii ña ca doon dox amul ku génn budul avocat Madické Niang ku ci wax amul Khalifa Sall dox nañ ci ba mu génn bu dul avocat bi desete bu ma juumul c'est maître damay bañ a juum ci tur bi metre Touré bi décédé nekk freeru Mbaye Touré mais moom rek moo ci génn ne man maa ko dox te boobu danoo xaar ba xalifa génn mu ciy doog a wax mais kenn yëgul woon ni sax nit mu ngi ciy dox bi ñu daje Masalikul Jinaan di waxtaan ñu bari danoo foogoon mbiri Karim Wade ak Macky Sall la mais Masaalikul Jinaan nag de lijjanti nañ fa sax mbiri xalifa loolu tax xalifa bi mu génnee dem dajeeg mbàkk yu fay nuyu ko sargal ko médiation noonu lañ koy doxee une médiation doit être silencieuse mais souterraine mais nan ngay defee médiation dara sotteegul nga xëy ci rajo yeeg yi di ko bàkko ni man maa ci dox maa ci wax looloo tax Macky Sall occasion boo ko may rek day jël macha allah dafay occasion boo ko may day jël. léegi nag bi mu utilisé bavardage ci gars yi ak wax ju bari ji dem mu dem conseil des ministres tiitaru na du ci waxati même bu ci naree dara du ci waxati est-ce que nekkul ni sax ñoom ñoo leen poussé pour ñu wax ci poussé Alioune Tine poussé le gars euh, Pierre Atepa pour ñu wax ci léegi bu ñu ci waxee mu mel ne Sonko moom moo sori parce que le fait que ñu waxtaanee médiation bi day tax maanaam. front bi front bi ni gars yi waroon a wàccee ci mbedd mi ñu taxaw di xaar parce que fii ñëpp a sonko ñëpp a bëgg sonko génn ñëpp a bëgg lee prisonniers politiques génn léegi jamono ji nga ko jekkoo vendredi dëkk bi yëngu ñu dugal loolu boo ko dugalee nit ñi dañuy dala loolu c'est naturel ah dañ naan mais comme ñi ngi ciy wax ñi ngi ciy dox mais xaaral ñu taxaw fekk ki la koy wax gëmu ko mais moom information bi la bëggoon mu génn parce que boo xoolee lu tax ma ni la état bi ñoo njëkkoon a bëgg information génne journalu Madiambal Diagne le quotidien moo ko njëkk a bind seetlu leen jour avant ñu ngi wax le journal quotidien bu ma Madiambal Diagne moo ci bind non non am na projet d'amnistie bu nu waree li àllarba mais boobu man xamal lu ma jàpp ni lañ ci jublu woon pour que manifestation yi ak taxawaay bi askan wi am ñu mën leen a dalal léegi di diñuy wax waxi dialogue bu ñu gëmul di ñu wax waxu am amnistie di ñu wax waxu leneen parce que tey jii wax ji lenn la war a doon mooy ñu imposer Macky rapport de force boo xam ne day dab def élection yi ci lu gaaw gaaw la deux mu jóge fi te nag sax li ñuy gëmal naan la président de l' assemblée nationale fi mun na jël réew mi ñun falu ñu Amadou Mame Diop ñun Macky Sall lan falo man laa bu jeexee dafa war a dem cest à que il faut que tey jii wayu am daaneel ñu xam tey jii essentiel bi combat bi dëgg lan la war a doon taxawaay bi lan la war a doon mooy Macky Sall jóge fi li détenu politique yi wax démb man loolu laa gëm les détenus politiques nee nañ ñoom bu sañoon élection day am bu élection yi jeexee président bi fi war a toogal génne leen mais Macky Sall mii bu leen génnee tamit ndamam la mais Macky Sall gunge bu rafet maanaam ngan gu yàqu gun gunge bu sori du ko defar li fi yàq moo bari mënatul jubóo kenn ci dara danoo tooñoo tooñoo tooñoo tooñoo tooñ tooñ tooñ ba nu jàpp ni bi mu nee du ma defa troisième mandat mën nañ ko jéggal mu xëy tooñaat tooñaat nu mooy mu dugal ñu ci guta ba àdduna bi yépp ŋàbbunu ci wàllu démocratie suñuy point wàññeeku tey jii taxawaay bi Nations Unies am taxawaay bi États-Unis am Union européenne am ko ñëpp am ko taxawaay boobu la ñëpp war a am mooy luy diir la vérité na ko Macky abbaana gasi a faga sa mandat jeex na ku jeexal da ngay dem nguur kenn du ko ñedd dialogue baax na amnistie baax na lépp baax na mais tey jii li war ten war ci wax mooy ñu xamal ko ni sa mandat jeex na da nga war a dem mais il ne faut à chaque fois mu ñuy jox ay calmants du ñu jox ay paracétamol bu ko gars yi naanee rek sedd dem toog moom mu nekk ci li mu ne di dérouler loolu waruñu ko may waruñu ko may nguuram di jégalu ñëpp di leen euh, gërëm di baalu àq ñëpp di gërëm El Hadji Modou Diouf Abdou Top ak ablaay Omar Bun Khattab Gueye moo leen ko doon présenté di ñaanal ñëpp jàmm ba beneen alxamis incha allah.